tëj tëj tëj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 affirmation bi nga may waykat bi ci réew mi waaw am jom Thank you.

doy na la ñuy topp eh doy na la ñuy topp topp ñu góor yàlla topp ñu góor yàlla. topp nañu góor yàlla eh eh yow la ñuy topp yow. Ayo.

bii nag am nañu war a comprendre mënul wàcc fii nag jar jar jar bu ñëwoon du mën a wàcc. Waly kase kase kase kase. Idaali Idaali. Nank rek nank rek. waaw dama nank ko dama nank ko nank rek. ah ah bu dee bu dee Myanmar. Secteur Sëriñ Tuubaa bi kenn du yow day daw rek kenn du yow mu dugg grand may leen ko may leen ko mu dugg jàmbaar may leen ko Maria Sirba ci biir waykat bi ci réew mi waaw am jom Thank you. Go! yoon la ñuy topp yoon la ñuy topp topp ñu góor yàlla topp ñu góor yàlla topp ñu góor yàlla Ayol, ayol.

wale wale wale wale wale wale wale wale mais Waly boo wootee doo génn de Pape Thier ñëw gars yi bëri ngeen de. bu ñëwul doo mën a génn de. waaye cer bi ñëw ndoomu la génn de faw cer ñëw son excellence son excellence son excellence te king on la président jamaay de Wally Seck la de jamaay de <laughs> son excellence the king of the day dem de day dem de barki yàlla boo leen puusul day dem. ñun loolu ñu bëgg loolu ñu bëgg loolu ñu bëgg. barki sëriñ Sall. Vai, vai, vai. dañuy liggéey soo la lañu day rafet xam nga ne lii yàlla la lii yàlla la gaa yi ko sonal ah? journaliste yi mu lakk la leen ah? Ah? Senjata jaajëf waay gars yi. dimbali ma rek yokkal ma ko. ah dama ne ku yegg si. ñoom it ay coono la ko taw bi dana jàkkaarloo ko fii fii moo ñu toog. ñëw ñëw ñëw ñëw. teg ko CFB. léegi nag déglu <laughs> Wally Seck mi ngi nii moom la ma poussé tey nii léegi mi ngi ci yoon ah. bu kenn dem na ñëpp toog waaye sama promoteur Soso. lu tax ma ñëw fii. théâtre bu bees bi tudd nu mu tudd. sama xarit la. ma ñëw tuuti. sama acteur la. théâtre bu bees bi nu mu tudd. xam nga boucher du du mbër nee naa ko na bàyyi làmb. waxuma seen Soso waaye. te ñëw di jouer théâtre ah. Soso daf maa woo vraiment mi ngi mi ngi def liggéey bu rafet. ba pare mu nekk nit ku baax. nit ku am jom ah nit ku nga xam ne vraiment li mu def nii ah, état bi ko war a jàppale parce que dafa créé ay emploi yu bëri defe naa foogewuñ ko ko woon keroog ba mu ne dafay ubbi lii am ku nekk monsieur Bogue bi ma ne waaw man toog deful na rek ba am xaalis alors que c'est pas que da ngaa ubbi rek da ngaa am xaalis da nga am jom bëgg sa réew nga xam ni euh, da ngay nekk sa yoon rek ñu ñëw rek dégg nga dëgg. ko am jom la il lañ félicité di ko encouragé bu ëppee lu ni rafet na ma ñëw ndokkale ko ñëw xool toogaay bi te loolu ba mu tànni. lan lañ war a a